salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen di leen nag dalal ci seen euh, magasin bi di page euh, local tey dañuy dem euh, CICES ànd ak njiital RDS di maam Matar Gueye mu fa doon amal li nga xam ne mooy rentrée politique am di nag fesal àndam ak président Macky Sall maam Matar Gueye bu ñu ko dégloo nee li ko tax a jug daal mooy gunge vision président Sall ngir Sénégal jëm kanam waaye itam dox tànk jàmm diggante leader politique yi ngir rek Sénégal mën a am jubo ndax loolu dinañ ko soxla ci élection locale ñu jëm dañuy dem CICES ànd ak maam Matar Sénégal est aujourd'hui une démocratie majeure, et c'est pourquoi chaque citoyen est libre de créer un parti politique. Cependant, cela obéit à certaines règles et exigences. Parmi celles-ci, l'obligation de convoquer une assemblée générale de renouvellement des instances tous les quatre ans. Mais pour un double objectif, le Rassemblement démocratique du Sénégal, RDS, s'est réuni dans les locaux du 6S. E que vous scellez, à partir de 2014. Le partenariat politique, responsable, cohérent et patriotique entre le Rassemblement démocratique sénégalais que j'ai l'honneur de diriger et la paix pour sceller ce pacte de partenariat, nous lui offrons une compilation des hadiths du prophète qui, comme tout le monde le sait, est le grand initiateur le grand bâtisseur de la cité-État de Médine, et à travers ses hadiths, qui constituent une source d'inspiration pour tout dirigeant, nous avons bon espoir que le président Macky Sall trouvera l'inspiration, la lumière nécessaire pour que Subhanahu wa le consolider dans l'exécution de son sacerdoce à la tête de notre cher pays, le Sénégal. Cette assemblée du RDS a dû être transférée dans une autre salle au dernier moment car la première, d'une capacité de 1200 places, ne pouvait pas contenir les quelques 1200 militants qui ont répondu à son appel. De nombreux dignitaires lébous ont effectué le déplacement à l'invite de leurs frères. a wax benn bi man mii Bassirou Diagne Marème Diop moomu jur Fat Diagne Marème Diop ak Bassirou Diagne Marème Diop Marème Diop Maxtaar jur ak Amadou Diagne Baye Ngagne kon yàlla na sell na ma toog fii bu takkoon xare damay takk xare ànd ak moom kon su wootee lu mel nii na Sénégal xam ne su ko woote woon fukki yoon ma taxaw fukki yoon su ko woote woon ñaar yoon ma taxaw ñaar Mame def nga lu mag yow ba ma yàlla boolee ak yow yàgg na ngay nit koo xame nit ku dëggu nga. dambayaan Sénégal man gan Sénégal mooy sunu gaal nanu jóg man koo fi ñëw te manoo jóg yaa avocat et coordonnateur de la coalition pour l'émergence a pour sa part réitéré son engagement à toujours cheminer aux côtés du RDS et de son leader, non sans préciser les objectifs assignés à la dite coalition, dans le compagnonnage avec le président Macky Je suis avec Mokhtar Gueye, la majorité présidentielle dirigée par Macky Nous sommes des alliés de Macky mais nous ne sommes pas les assujettis de Macky fukki at ak juróom-ñett. c'est nag suñu diggante dañ ci boolewul woon benn coow. mon frère et ami le docteur Cheikh Kanté bi nga xamee ni que dafa ànd ak style. maa ngi nuyu kilifa yi ma fi fekk yëpp rawatina ñi nga xam ne ñoo ŋànk RDS muy bureau bi ak tout le staff maa ngi leen di nuyu. bu ma jógee ci loolu maa ngi nuyu ñi nga xam ne ñoom ñooy militant RDS bi. d'abord me réjouir profondément et alors profondément pour cette belle et grande mobilisation qui montre déjà que vous êtes prêts à faire le grand bond en avant à côté du président Macky Sall pour un Sénégal émergent. À la suite du discours de quelques membres de son parti, Maktar Gueye a salué le sens de l'ouverture du président de la République et remercié chaleureusement le docteur Kanté, instigateur de la retrouvaille RDS-APR. Devant ses proches collaborateurs, dama ko ne Sénégal xam nga lu ko yàq am na ñoo xam ne ils passent tout temps di utal buur noonu buur kenn du ko utal te Cheikh contraire bi lay def c'est-à-dire moom day seet au contraire. koo xam ne ancien noonu buur nga mu soppi la def la soppe buur ku ko dimbali noonu ngay def daacu leen ci loolu sama diggante ak Macky Sall moom mi moo ko ràbb ba mu defara rawat yàquwul woon sax waaye moo ko rattaxal rattaxal ba ñu ànd toog ak Macky Sall pendant naa heure de temps waxtaan waxtaan bu yiw yàlla na ko yàlla fay ñaanal leen ñu ko bu baax a baax Macky su amoon ñaar ñett walla ñeent yu mel ni Cheikh

que leur tend fraternellement le président Macky Sall, d'abord pour l'intérêt supérieur de la nation, ensuite, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, parce que ce pays nous appartient à tous et nous devons le construire ensemble. damay citer benn exemple rek Europe xam ngeen ne Europe ñu ngi jëm vers l'unité ñoom am nañu monnaie unique am nañu passeport unique am na nañu parlement unique mooy bi nekk Strasbourg léegi ñoom ñu ngi def jéego pour am une constitution unique looloo waral nag Sarkozy bi mu faloo un an après en 2008 dafa waroon dem France euh, euh, Bruxelles pour ñu discuter sur le projet de constitution européenne mais avant muy dem dafa woo ñëpp kenn par ku nekk mu déglu la ba mu taataanee xalaatu ñëpp nag ba mu demee. au conseil de l'Europe à Bruxelles neewul man président France projet de constitution bi nii laa ko gisee waxul loolu dafa ne maa ngi yëgal pays européens yëpp que lii mooy la position de la France toute tendance politique confondue noonu la démocratie di Le docteur Cheikh Kanté, qui a eu droit à tous les honneurs, a invité tous les Sénégalais de tous bords à accompagner son leader, le président Macky Sall, pour l'atteinte des objectifs qu'il s'est assignés. Je un appel solennel aux paysans, aux pasteurs, aux tailleurs de la diaspora que j'ai entendu, aux artisans, aux hommes, aux femmes, au patronat, toute obéissance confondue, de la main dans la main, œuvrer à côté du président Macky pour gagner le combat de la rupture et pour gagner le combat du Sénégal émergent. Je voudrais vous féliciter. et vous dire que le président Macky Sall le Sénégal a besoin d'hommes comme vous. yéen a ko gis mbokk yi ñu ngoog euh, di jógee foire bu Ndakaaru CICES foofee nag euh, la fa xewoon mooy rentrée politique bu RDS bu Mamata Gueye seetaan ngeen ko léegi ci image yi di leen nag jox euh, dig daje ci yeneen émission ndax ñun duñu tay di ànd ak leader politique yi wala sax ñi nga xam ne far ñu benn parti politique waaye Sénégal ñor na leen lépp rek ngir jëm ci local yi nga xam ne daal yittewoon nañ ci jàmm ci réew mi. di leen jaajëfal jox leen dig daje beneen yoon incha allah.